Daaru Salaam léegi. gëstu tay bi. Hmm. problème mu kër la encore. Hmm. kenn xamul lii lan la xam nga problème mu kër. Hmm. xam nga kañ lañ defoon wujju peccorka bi. démb. démb wala barki démb. démb. démb rek lañ doon waxtaan te wujju peccorka yi. d'accord léegi. tey nag wujju direct la yow Mantoulaye. aw ak ñaareel. dañoo xeexati. ah test bii man daal man man man daal man man xam naa damay mujj bàyyi. léegi boo leen def ma toog fii rek di leen waxtaanal. lu xew ci kër ga. ah. Hmm. xeex bi daal xeex nañu ba jàllaañoo njaay. te du gendarmerie la ñu wala police. jël ñoom ñaar ñëpp. jàpp nañ ne ñoom ñaar ñëpp. subhanallah an seen jëkkër. ñëw fi. lii fan la Touba. Touba. xeex ba police jël si leen. kenn kay moo porté plainte fekk fekkoon na fa plainte. ah kii nii demoon na plainte. Mhm. kii itam plainte muy ñaari plainte. dañoo plainte ba certificat médical amu ca. am na ca. maanaam ñoom ñaar dañoo plaintante. ku ne daa plainte moromam mais ay blessure waxal ñenn ñi neen dañoo jam ñenn ñi naan ci verre la dal allah eh. mahol li lan la ni institut li ñaw la allah akbar allahumma salli ala sayyidina waaw kii moo ci kat mhm. la ilaha illallah jam aawa bi nii buso buso tët tët tët ci lii lan tag di ko jamante aaw bi ci boobu aaw bi lañ gaañ ñaareel bee ko dóor ñaareel bi moo ko dóor gaañ ko mais ci version bi wax nii sëru ñaareel bi la waaw nee na moom aaw bi moo yoroon bi hmm. pour jubali ci ñaareel bi hmm. far yàlla affaire bi toj mu dal ci sumeer sumeer jox ñu ñu xool histoire bi nu mu demee ñaari wujj yi aawa la ak ñaareel aawa bi bu sa la tudd ñaareel bi Penda Fall la tudd bu sa siisee am na ñaari wujju Penda Fall mooy ñetteel bu jëm ñëpp ay ñaareel lañ parce que moom dafa sikk man moom li may wax nëbbu ma ko parce que boo nekkee moom bañu ma ci dara léegi nag Penda Fall mii magam moo feebar mu seet si magam benn fan ñaari fan bi ko ñetteel bi fan te fan yooyu mu seet si mag yëpp lekkul naanu am lu ko naqari torop ndax nii mu gisee magam maa mag ji yàlla eh, ñëw ak dogalam bu metti ba waaw léegi nag noonu mu doon gisee mag ji noonu ak ak ak ak na mu ko xamee woon ak ni mu ko tiimee nii te xam ne kii nuru na ko kuy dem parce que ñun tamit xamuñu kuy dem nuru na ko nuru na ko kuy dem naqar boobu mu yóbbaale këram nag bu jëm bii di bu sa siisee provoqué ko ci jox ma sama baraada sama baraada yaa ko denc ak denc ma ko xas ko ci ba mu ràpp ci sa yaay nangam la fi lañ lañ ko mayoon bi ngay sëy seeg kon yow amoo loo jënde baraada yooyu xas ko ci xas ko ci xasu ñàkk fay damay xasu ci xasu jigéen yooyu ak dangay cagatoog lu ne da ko koy jiiñ léegi nag nday pend faal moom révolté na ko nag yoruma sa baraada te yoruma sa baraada ëllëg fa boot doomam war a seeti magam boobu feebar ci la ñu commencé di dajji buntam bi commencé di dajji buntam boobu nag ci la jànku nday pend faal ne ko tante pend tante buso mi ngi dajji sa bunt bi ci la pend faal génn ci dëkkandoo ci la pend faal génn ci benn dëkkandoo benn maire bu ñu jàkkaarlool ne ko tante diw kaay wax ci tante buso mi ngi dajji sama bunt maire ba ne ko damaa uuf doom mu génnaat ci benn ku ñu naan bàyyi bàyyi bàyyi mu tafaafaal bàyyi tafaa kaay wax ci tànt Buso bi bàyyi tafaa toppee ci moom Penda ci la xolam laaj ak xolam bu naqari ba ak mu naa ne kii daal comme sama moroomu jigéen la te mi ngi may wut ça fait xaaral tamit nag ndax dëgg yàlla sës naa waaw parce que nitam boo ko toppee ba mu rek révolté rek moo fa sës ci la ci la ci la daw bam tam bi bu sa déggee Penda di waaxu di ñëw ci la jël verre benn coupe en verre bi envoyé naa la ko ci la jël benn coupe en verre jël ko di ko di ko dóor fi mu ko koy dóoree ñu xëccoo ko verre bi wadd parce sa ki am doom mënta yem ak ki nga xam ne xale bu juddu 92 la ñoo tolloo doole ci la ko penn faal yenu tay ko ci suuf fekk verre baa ngi jiitu bopp bu sa dagg bi bopp bu sa daggee moom mu yóotu mbaggum ndey pend màtt ko yóotuwaat fii ci suuf loxo bi fi ñu takk téere loxo màttaat ko muy ñaari màtt màtt mu jëlaat verre bi bënnaat fii ci wetu nopp bi ci la doomu aawo bi yuuxoo ne ko tànt naan ko yaay bul gaañ tànt penda yaay bul gaañ tànt doom ji sëñ xaadim la tudd na ko yaay bul gaañ tànt penda ci la nag paay bi mu wooyu woon ñëw àtte mais bi mu koy àtte bi mu àtte si mi ngi fekk ndey penda faal ci kaw aawo bi parce que moo ko mën noonu dong la demee nag léegi nag mag rakkam bu tudd Maroc moo jël vidéo bi jël photo yi Penda Fall yi montage ko te xam nga ne sàcc sax buñ ko jàppee li yoon wax bu dañoo war a euh, muur kanamam waruñu koo génnee kon nag ñoom normalement amuñu woon droit génne photo jàmbur yàq ci deram te fekk na fay demewul nii ki ko def mu ngi Maroc de moo bu sa siisee ñoo bokk baay te yaay ndey Fall Cissé moomu nag moo ci doon politique politicienne la moo ci doon politique di nekk ca bunt ba ku nekk mu woo la woo na ko ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ne leen dañoo arrêté sama doom te du doomam doomu wu jëm la ci la ko arrêté ci la ci la fa la toog ñu ñëw di ko jox ay xaalis ak di ko kii mu jël di di di di di. di di denc jël ñaari xale yu jigéen yi sacrifié leen dama nañ koo réglé à l'amiable ku nekk dem ñibbee nii rek la demee bu sa si sa moo tooñ day penda faal topp ci di ko topp di ko topp xale bi di ko daw di ko daw ba sëcc miir wis bi nag révolté wu ñu daal di koy jël yàq deram di ko dugal ci réseaux sociaux yi te demewul nii. waa bi ñu àndee bi mu yëkkatee verre bi pour dóor ko ko. léegi verre bi bi mu daanoo toj ci la Penda songoog moom bi ñu songoo ñu ànd bërëngu ci verre bi parce que Penda koy moo ko ëpp doole bi ñu àndee bërëngu ci verre bi moom boppam ci la dagg sama rakk bi moom foofu rek moo dagg mais mbagg bi ma la envoyé moom moo ko màtt bu sa moo màtt mbaggu Penda moo màtt mbaggu Penda ci jour bi fa lañ ñëw moom aawo bi ci boppam moo ñëw takk maskam pour moom duñ ko xàmmee dem ànd ak police sans mu indi convocation parce que ñun xam nañ droit xam nañ yoon bu fekkoon indi na convocation dañuy dem guy ji parce que amul luñ ci ragal mais nag indiwul convocation dafa dem rek ànd ak ñoom rek daal di ñëw si jour dëj bi bi ñu enterré ba ci suba si ci la moom bu sa siise moom mu dem ànd ak waa police lu gën a ñaaw ci àdduna moom bi yaayam décédé sama rakk bi dafa woo famem yépp ne leen sama yaay wujj bi dafa gaañu ñépp fa lañ yend ba ngoon jàppale ko ci ay ganam togg la ko ay toggam dégg nga séddale ko ay séddaleem ba déyam jeex ba dëjam jeex ñun suñu mag bi ba mu décédé moom lu ñu fayee mooy indi fa auto police moom en personne moo ñëw moom en personne moo ñëw indi fa auto police pour jël si sama rakk bi sans autant mu indi fa convocation loolu laa wax jotul sax sa yi léegi ñoom waa jeudi lañ leen war a àtte léegi nag busoo li mu réeree mbir mooy xam nga boo jàngul xam nga boo jàngul dafa yaakaar ne moom supporter plainte kenn waru ko téye mais bi mu demee dafa fekk médical ñu boole leen téye ñàkk boole téye googu ñu leen bàpp ñàkk ña euh, boole téye googu ñu leen boole téye moo ko xaw a jaaxal lool daal waaw loolu moo ko xaw a jaaxal moom loolu moo moo ko déplané de trop waaw léegi nag moom loolu moo ko jaaxal boole gi ñu leen boole téye waaw bi mu demee nag déposé xale bu jigéen bi ba pare daan ne mu ngi ñibbi lañ la ko mënoo dem parce que kii tam dafa am médical yéen ñaañ ñëpp lañ leen di arrêté. waaw beneen wujju bi beneen wujju bi nga ko kam njëkk am ci wujju kooku moom daan xeex ak moom guddi ak bëccëg suba ak ngoon kooku moom mosuñoo juboo defante rek lañ daan def deuxième wujju bi moom jotut a egg moom tubaab la ba mu déggee ne kee defante rek moom demul.